sët ak sëtaati Cheikh Abdul Ahad ci jéego yu am solo yi nga xamee ni moom lay def at mu jot bu ñuy fàttaliku Mawlana ak Cheikh Abdul Ahad daayira boobu nag nga xam ne moo lëkkale sëti Cheikh Abdul Ahad yi di def saa yu ñuy fàttaliku sunu jàmbaar jooju mu def lu mel nii mu nekk jotaayu xam-xam boo xam ne dañ ci woo kenn ci boroom xam-xam yi mu nafaral ñu benn tomb ci tomb yi nga xamee ne ñun julli ñépp dañ ko yittewoo rawatina ñun murid yi kon jotaay bi insha allahu taala dana ko def ci ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi ab conférence lay doon ak ay commentaire conférence boo xam ne ñu ngi koy def ci alxidmatul ilmiya fil muridiya maanaam liggéey ci wàllu xam-xam naka lañ ko yoonu murid naka la ci amee ak ban taxawaay la ci yoonu murid am ak jëmm yu baax yi ñuy fàttaliku lan lañ ci def mooy ma ci wàllu xam-xam servir à travers de savoir conférence boobu nag suñu sunu jur di suñu oustage Cheikh Awa Balla Gueye moom moo ñu koy defal lu tolloog ci ñeent fukki minutes ndaxte dañoo am ab retard ci programme bi bu ñu ca noppee nag dana am ñaari commentaire yoo xam ne dañuy ñëw commenté ko ci ku njëkk ki di Cheikh Mouhamadul Mourtada ture lu tollook ci juróom-ñaari minute ba fukk gannaaw loolu Abdul Xaadir Ba Majalis moom it def ci commentaire ñaareelu xaaj bi nag dafay nekk benn division boo xam ne dañ koy def ci dundu Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moom lañu ñu jagleel jotaay bi tey di wane ay réalisation yoo xam ne moom Cheikh Mouhamadul Mourtada taxawe na ko ci wàllu xam-xam loolu nag daayira bii di xidmatul xadim moom moo ko programmé moo ko préparé moo ko def loo xam ne dana tollu ci lu toll ci fanweeri minute boo xam ne dañuy wane xidma ilmiya servir bi nga xamee ni moom la al mujahidul akbar cheikh Mouhamadul Mourtada doon servir ci wàllu xam-xam ak it benn film boo xam ne nii dañ koy def ci al cheikh Mouhamadul Mourtada ak al cheikh Abdul Ahad te film boobu noonu ñu jëlee ci ay témoignages ñoo xam ne dana bàyyi ko ci al cheikh Abdou Samad ibnu cheikh Chouaïbou ak Cheikh Mouhamad Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Seyid Mourtada jóob lu war a tolloog ci fukki minute euh, gannaaw loolu nañu jëm ci ñetteelu xaaj bi ñetteelu xaaj boobu nag ñu koy jagleel ñi nga xamee ni ñoom lañu tuddee bés bi su ko defee ñoom kiy wax ci ñoom danañu ko may lu tolloog fukki minute ak juróom ba ñaar fukk su ko defee mu wax ci kàddu njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada gannaaw loolu tamit ki nga xame ne moom moo jiitee daayira bii di xidmatul xadim joxe kàddu gi nga xamee ni ak kàddoom lay doon di kàddu daayira bi ca sëriñ Cheikhouna Mbacké ibnu Cheikh Hamza nu Cheikh Abdoul Ahad di ko def lu war a tolloog ci fukki minute ak juróom su ko defee nag ki nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi sëriñ Sidi Abdul Ahad ñu jox ko mu tëj jotaay bi ci ak kàddoom ak ci ay ñaanam xam naa kon pour commencer rek dañuy woo sëriñ Abo su ko defee mu defal ñu kalimatu tarxiit bi maanaam le mot de bienvenue mu ñëw dalal gan ñi nga xam ne ñoom ñoo woote wuy si bii ñoo wuy si woote bi ñu woote su ko defee ñu mu defal ñu ko rek ci ay minutes yu gàtt comme que dañoo accusé benn retard bismillahi rahmani rahim alamin wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-yamin mbokk jullit yi fi teew yépp suñu mbokki murid yi ginnaaw ba sante yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala borom dool yi ko fee yàggal te leen ko wéral ba li mu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa yépp mu yëkkale di ko ñaanal suñu kilifa bu tedd gi nekk ci barab bi Sëriñ Sidi Mbacke incha allah suñu borom gën koo kàttanal dëgëral ko ba li mu fas yéene liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yëpp mu jegale ko comme ni ko mbokk yëpp xame bu mu saa dem ba ci waxtu bi màggal bi des ñaari fan waa daayira Xidmatul Xadim bi nga xamante ni moo lëkkale sëti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yëpp ci góor ak jigéen mag ak ndaw danañu dajaloo amal jataay bii xool itam kenn ci mbokki kilifa googu bu tedd googu ñu ja ñu dara jaare boobu na mu daan amale rek noonu lañ ko amalee tey jii itam ñu dara jaare ko Cheikh Mouhamadul Mortada tataan na itam benn thème bu am solo boo xamante ni mbokk yi danañ ci mën a jariñu bu baax ñu dajale leen ci barab bi waxtaane ko nañu ko daan defee rek noonu lañ ko defewaat tey jii itam di am mbégte lool nag ci maanaam jataay bi di leen dalal di dalal suñu kilifa yu tedd yi fi teew di suñuy waajur waaye itam di nijaay ci ñenn ci di ak suñu mag yi fi teew ak suñu rakk yi ak suñu mbokk taalibe di leen dalal ak jàmm di am mbégte ci teewaay bi ak borom xam-xam yu tedd yi nga xamante ni ñoom lañu seqal waxtaan bi ndax euh, bu ñu waxee ni dañuy dajee ci kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ci ab conférence boo xamante ni sëti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yi ñoo koy amal ñu tànn ci thème bu am solo bu jëm ci wàllu xam-xam te conférence boobu ñu jagleel ko Cheikh Cheikh Murtada yaakaar nañu waxtaan bu am solo lay doon ndax ñoom ñaar ñëpp nekk nañu ràññeeku ci liggéey bu yaatu boo xamante ni liggéey nañ ko xam-xam boo xamante ni ñëpp mën nañ cee teg seen bët di tànnoo suñu jàmbaar yu tedd yi tamit ñu fas yéene ko defal muy Serigne Cheikh Awa Balla Gueye fas yéene ko seq ak Serigne Cheikh Awa Mbacke mi ak Serigne Mahamadou Mourtada Touré Cheikh Xaadir ñaan suñu borom kàttanal leen dëgëral leen ba ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla defal ñu dégg ak topp xam naa kàddu gi ñuy tëjee rek mooy mbokk yi ñu ngi doon sàkku ci mbokk yi fi teew ñu ñaanal suñu kilifa yoo xamante ni dañu fee bàyyi ko woon te bokkoon ci njabootu Cheikh Abdou Lahad muy sëriñ Cheikhouna Mbacké ak sëriñ Saliou Mbacké ñu sàkku ci mbokk yi ñu defal leen ñaan ak euh, mbokk yi nga xamante ni fekk na leen foofu ci barab boobu yëpp ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di leen dalal ci turu waa daayira Xidmatul Xadim yi wassalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlaana rasuuli l-amiin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaïn ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا وقدوتنا أحمد بن محمد خديم المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ردا لا شرط بعد إخواني الأعزاء أصحاب الفضيلة العلماء معالي الشيوخ الكرماء يسرني غاية السرور مسولي أمام حضراتكم لإلقاء هذه المعابرة التي تكون ضئيلا بالنسبة لي لأنني عاجز عن عداء ما تتلب منا لقصورنا ولمهابتنا لهذه الجلسة الكريمة التي تعفنا هذه الوجوه المتعللة وجوه العلم والثقافة والمعرفة وكيف لا أتأيب هذا المقام وفيهم هذه الفضائل الكبار من سؤراء ومن كتاب ومن قراء كلهم نئلوا من مناهل شيخنا أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه fa jasakumullahu an il islaami xayra wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel it ci bis di jiital ci nuyoo beeg siyaare bi fadilata cheikh muhammadin il muntaqa xafisahu llahu wa ayyadahu wa jamiha ixwanihi albarara wa ala rasihim cheikh sidi ibnu cheikh abdullahi al ahad saaxib haadihi leyla alkarima di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen xéewalug wér ak wérle ak yàgg fi lool ak àggale itam naal yi yi nga xam ni naal nañu ko te sofe ko ci naalu gaa yu baax yooyu te nu fekke ko nu ñëpp itam nag di wax nag sunu lottu lool lool ci joxe li ngeen nu laaj ak sunu ragal lool barab bi ndax li nu fi jàkkaar lool ci ay boroomi xam-xam di ay bindkat di ay suara yóbbu nañu sama fit ba rubbama du ma indi li ngeen séentu ma indil leen ko jamono bu nekk damay joxe ngànt bu ñu ma wooyee ci jitaay bu amee fii ci dëkk bi ndax dëkk bi seetaan fi ak diglu fi dafa ma dàqal ñu diglu ma fi mbaa ñu seetaan ma fi ndax li ma fi xam ci ay boroomi xam-xam yu nëbbu ci sunu biir te jamono jot mu war a feeñ di fityatun amanu bi rabbihim di jàmbaar yoo xam ni ñu ngi ci biir ruq yi di génne ay xam-xam yoo xam ni ay nit weg na ci yoonu murit te yëgu leen ko te mooy ñu ngeen di tudde ay tuur tànk jamono bu nekk may wax ni noon màggat yi ëtt bu ne taxaw nañu fa di wax jamono ju nekk wax nañ fa ndax jotagul nu wàññi ko woo rakk yi woo doom yi nii leen kaay leen nu seetaan leen ndax nu xam bu nu fi jógee nu muy mel yàlla te ñu dégg ma ba ñu def ko loola ma tiitloo ci jitaay bi rawatina ngeen ñëw feggale ma bayna hasayn al alabayn nga xam ni ñoom ashaaru munqaada ci seen loxo la nekk bind noonu ba noppi ngeen dinaa toog ci seen biir jéem a yàq dara lu dul nii ci ñuy waxtaane walla ñi ñuy waxtaane danoo sawar ci waxtaan ci thème bi ñuy waxtaane gën noo sawarloo ci waxtaan ci mooy liggéeyal xam-xam te dëkk bi benn dëkk la bu ñuy tudde Tuuba madinatu maskanu taalim wa maskanu taallum wa maskanu irsaad wa maskanu tafahum loolu dara génnu ci xam-xam muy dëkk bu ko nangu nag nangu lool bu doon joor la gu ñuy beye moom dafa nangu xam-xam ñi fiy jàng jàmbaar lañu lool waaye maa ngi leen di digal bu ñu yëkkati seen mbagg boroom moo fi def kiis gi kiis gi tax alxuraan ji gaaw a mokk kiis gi tax xam-xam bi gaaw a bari ku góorgóorlu lu mu néew néew di nga joteeg loolu kooku ki woon na dëkk bi nekk maskana taallumi wa taalim moom la kon suuf si loolu rek la nangu nanguwul leneen ay jaag bariwu fi ay naafi gerte bariwu fi commerce bu àndut ak liggéeyal xam-xam sax nanguwu fi bu ma nee commerce bu àndul ak liggéeyal xam-xam nanguwu fi bul ma joxoñ mukk ni diwa nga ne du toppatoo xam-xam te bari na xaalis bari na xaalis ndax jariñoo na xaalis ndax jariñoo na xaalis déedéet du ko jariñoo ngir li borom dëkk bi laajoon dégg ko mooy loo fiy def na nekk xam-xam xam-xam képp fi nangu kon boo bayee dundal ci dëkk bi mbay ma xam-xam la boo commercé dundal ci dëkk bi commerce bi xam-xam la loo def ba dëkk bi yëg ci boppam loolu xam-xam loolu li xam-xam lay teg ndax loolu moo taxoon ñi niy waxtaane nag di boroom bis bi dañoo déggoon loolu xamoon loolu mësuñoo def ci àddina lenn lu dul ni luy jëmbat xam-xam la bu ñu bayee xam-xam a tax ñu bay bu ñu goree xam-xam a tax ñu gor lu ñu def xam-xam la woon xam-xam feesoon dell ci seeni dënn yàlla ubbi woon leen te Cheikh Abdoulaye Ahad nekk na ci misaal ci wàllu xam-xam misaal la ci wàllu ifs moo lool lu ne mu xam ko ci fànn yu bari ànd ak muuree ko bëgg sëriñ Touba ni mu meloon ci mokkal néew naa am nit ku ni mel jàppuma ni nit xam na xasiida gu mu mokkalul alxuraan moom waxuma ko wala xasiida yi ñu doon jubale sëriñ bi mu jóge ci ñeneen doy na ci firnde boroom xam-xam bu mag bu ñu doon wooyee cheikh abdul wahab Diop ibnu cheikh ibrahima Diop al-Mat'ari daa ñëw di siyaasi sëriñ bi fii nuyoog moom ñuy waxtaan ba àgg ci wàllu woy sëriñ bi laaj ko ndax man ngaa woy ni ko ma ne woon ku ne xam na Cheikh Ibrahima Diop ni melam ci woy mu ni ko maa ngi koy jéem ni ko fan yii sax dama doon jéem a toppatoo woy sëñ bi ngir won si la ko maanaam jàpp ni sëriñ bi gisu ko Cheikh Abdoul Ahad ni ko fii ma toog mokkal naa ci ñetti junniy béy yu ma mën a tari bii ma toog waa mbokk yi ndax loolu mokkalu kese la te mokkal na yeneen yenn yi dafa am ku baax ci mag ñi may jàng benn téere bu ñuy wooyee alxasra ji fi ilmi al arudi wal xawaafi mu tiim ko ni ma téere bi sëñ Abdou Lahad gën a na mokkal léegi nii kon kay moom foo foofa la woon mu doonoon nag jëmm joo xam ni la woykat ba waxoon ni laysa ala llahi bi mustankarin an yajmaa al aalama fi waxidi lu yomb yàlla mu jël àddina bi yépp teg ko ci sa loxo sëriñ bii nuy waxtaane yàlla tegoon na lépp ci loxoom loolu mooy lan mooy lépp luy baax ñi di ko joxoñ tudde ko mbaax jàmbaar la ca waroon ca tab ga ca njàmbaar ga ca fit ci ñime dëgg ga yemu cee kenn ànd ak nag di jëfandikoo alquran li muy xam-xam ak li muy ñime dëgg lépp da caa boole woon di diisoo ak boroom xam-xam yi du def lenn lu mu diisoowul ak ñoom mas naa wax ni bu ma juumee kàmb goo ma fekk boo yéree di nga fa fekk nangami nit ci biir ndaxte waxtaan naa caag ñoom kon noonu la meloon da doon digloo ñimee nag dëgg mooy lan daan jël nit yi dëgg di ko wërale jëmmam bu jógee ñu ànd ak moom li gën a jafe ci ànd ci kilifa mooy àndandoo koo xam ne buy ñibbi du la laaj dépense bu ngeen toogee du la laaj masala kooku loo ko laaj ci dëgg mu jox la boo ma saa ñëw ci kër gi maa ca belal bee dañu la naan néeg sëñ Modou Mamoun ñanga nga ne aalim néeg sëñ Amsatou Mbacké Darou Moukhty nga ne aalim néeg sëñ Abdoulaye Karama nga ne alim ñooñu ñooy remplir oto ku ñi ma dëgg mooy ànd ak loolu noonu la doon demee ba maa ngi fàttali kuy jamono bu daan def benn waxtaan rajo Sénégal day ñëw fii enregistré ko waaye buñ ko enregistré ba àggal balaa dem rajo ba dana wër mboolem këri rakkam ñu diglu ko ku ne joxe ci sa xalaat kon looloo firi li mu ni wan bu ma juumee kàmb ga ma nekk di ca séen yu bari nekkoon ku tabe nag ku dëgëroon danay wax ni bu ma doon wax ci jëmmi Serigne Abdoul Ahad damay doyloo rek mag ñi fa fekke woon la wax ci moom doy na sëg kenn ngi nii ñu di ko woye Serigne Salifou Mbacké mu Cheikh Moustapha ngeen gënoon koo xam ci suñ saa dafa si ñëpp laat fii wax ko baat yu rëy ni ko innal xilaafata innal xilaafata laa tara kuf'an wala tarda siwaaka islaamiyan wa asila gis naa ne xilaafa day nanguwul kenn wàcc ci loxol kenn ku dul yow mawlaaya yaa seyxul xalifatu dum lana inna bi ahdika laa nuridu badila yow sëriñ bi li nuy ñaan moo nga nekk fi noonu ba faw ndax buñ nu bëgg na wutal lu la ko remplacer duñ ko noonu nekk fi yow ba faw nag du mooy rek saa boo xëyee siyaare mooy koo xam ni ki fi jóge bu yàgg moom fi nekk tey jii nuy waxtaanee mbiram loolu mooy nekk sa ahdu bi nga nekk jamono bi nga nu andil ahdu taxaabu bi wa taasuri wal aqa kullun yuqabbilu xasmahu taqbila jamono yu bëggantee ngi nii jamono yu soppantee ngi nii jamono yu dëgërantee ngi nii kenn ku nekk ka nga doon xulul démb yaa ngi koy fóon tey kon nag abadan tajur bi kulli xaalin innama narju bi nafsika an takuna badila xam naa ni dangaa tabe lool de yaa gën a tabe ci àddina bi waaye maa ngi lay ñaan liggéey ngay tabe tabe tabe nga la waay bul tabe sa bakkan bi nawet sa jëf ndax dañ koo soxla Cheikh Abdoul Ahad ñëw ci dëkkam bii def fi lim fi def ci ay indiasat yu ngeen xam ba ca gën a rëy mooy dàq ndëngite mu dem ndëngite dàq ko mu dem baatam ba mu ni woon yooyu bëggatuma koo gis ci dëkk bi muy li ngeen xam cigarette ak la mu àndal mbaa jàppu leen ni tereem nga tuubaala yam kàddoom nga àddinaa ko dégg ba ñépp a ngi góorgóorloo tere bant boobu ci seeni barab boo demoon ba États-Unis sax fu nit di dajaloo dañ naan bu fi kenn ko keroog ba baatam boobu jibee keroog la am kooku nga xam ni moo ñëw fekk groupe boo xam ni lu leen neex wax ci sëriñ bi ñun ñëpp nu fekkee ko buñ nee màggal fii la micro yi daan taal ku nekk di xibaar ci sëriñ bi mu jóg dóor ci yetam ba firqatab tirain wa kis bi man ataw kulla mawtinin kaasibiina xasida ba ma ca defoon loola bokkoon na gaa yoo xam ni ne ci mën a dal nañ fa wax lu leen neex sëriñ Seex Abdul Ahad dóor leen yetam ba ñu ni meng léegi nag gaa yi nee ñu ma gaa yi nekkewaat nañu ñu ngi ci télévision yi wal iyaasu billaah na télévision yi ñoo amul borom waaye bu ñu amoon borom luy laal sëriñ bi mbaa muy gàkkal yoonu sëriñ bi dootu ca jib te nag mën nañ ko cey ku juumoon ba dem ci benn antenne wax ca lu dal état bu subaa dootu ko ca wax kon boo waxee lu dal njàngaleem sëriñ Touba ñu ni cell ndax ñor na leen beneen boroom xam-xam sunu xarit sunu doomu sëriñ sëriñ xalil mustapha sitam ni xafawatuhu taummu nnaasa turra masiyatuhu ala kull almasaaya li waj illaahi yunfiqu llaa riyaan fala mannan yukaddiru fi lhadaaya sëñ xalilum sëñ mustapha may noo ngi koy jàlle waajuram boobu moo waxoon sëñ Abdou Lahad lool ni ku am jàmm ngi nii koo xam ne ay mayam daa daj nit ñëpp waay koo xam ne ay mayam moo kawe maye yëpp koo xam ne la muy defit yàllaay tax njistal du ca am ndax njistal dafay nëxal ay addiya lii de sëñ Abdou Lahad ña xam seedeel nañ ko kon nag bu ñu jëlee ku mel noonu mu réaliser li mu réaliser ci xam-xam taal jàngukaay yi yokk matte mi nga xam ni ay magam taaloon nañu ko keroog ba mu ñëwee li mu njëkk def mooy école bi nekk ci jumaa ji di daarul maarif te ku baax ku muñ nekk fa alxaaji as jaxate dana ko yàlla yàggal te wéeral ko bi mu moolee majmua bi fa la ko jëkk a dugal ni ko ne ko ñëpp jàng kon kooko soññee la ci ni ko li la defe woon maa ngi sa ginnaaw kon liggéeyal na xam-xam foofa ubbi kàggoom gi jël mboolem doomi soxna yi ñu bind alquran ñuy bind xasida ba mu taaru te wér ñu indil ko ko fii mu rëdd université bee ba nga xam ne tey mooy yittey Seex Muntaxa ndax xam ngeen yoonu murit continuité la mu rëdd ngat wu tol noonu lu rëye noonu bàyyi ko kan bàyyil ko xam-xam kon gàcce ngàllaa ma jëmu jooju yal nañ ko yàlla fayal euh, kon nag bu ngeen jëlee ku liggéeyee la noonu xam-xam ngeen jël bisam toog ci ëttam ni lii jagleel nañ ko cheikh mouhamadinil mourtada al mujahidul akbar mi nga xam ne ñun xam nañ ko bu wér ci bëgg xam-xamam bu siinee nit ko am xam-xam day mel ni du ànd ak sagoo day tàmbalee muuñ yëkkati loxoom sax te ak seegoo dalay yàkkamtee nuyu te ak seegoo ndax bëgg xam-xam fonk itam xam-xam doon ko jëfe jël boroom xam-xam teg ko ci kaw ñépp du ko yemalee kenn ci àddina fonk lislaam ju tegu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko jalgatee dajeeg moom ku la ni joxe na ma ak moom loxo nuyoo na ma ak moom toog na ma ak moom lépp luy gàkk ci lislaam boo ko dee def dana la ko tere dana la ko tere dégg nga loola te daawu ci bàyyi benn point lu mu tuuti tuuti lu dul ni wax na ca dañoo toog benn bus New York ñu julli ba àggal am ku jël rajo bi ñu ko baaxoo defee rek kenn ku nekk na wax sëñ Saliou Mbacke yal na fi yàgg te wér sëñ Mourtala Mbacke yal na fi yàgg te waaye baat boobu li muy gàtt gàtt daal di nay jël kàddu ñu loolu sax day baax na waaye nag jërul di biral nag ndax ki ñuy ñaan yàlla te yàlla ngi dee te sax nag ñaanal ñi fi nekk ñaanal ñi fi bàyyi ko da gën a yey ndax lu bon bon maanaam nanu suñu bopp dara fii mu ne kon ñi fi bàyyi ko leen di fàttali foofu la nekkoon fonkoon boroom xam-xam yi waaye fonk xam-xam du nangu boroom xam-xam tuuti fi wetam du ko nangoo suufeel abadan dugg nañ ci benn bureau ci Washington yaakaar naa ni mooy maire booba maire ba jigéen la mu mel ni ñi mu àndal moo leen yilifaaye moo leen raw li nu baaxoo ci murit rek nu dugg ci saal bi ñu bari bëgg a toog ci suuf sëñ bi junj ni bu kenn toog ci suuf toog leen ci kaw fauteuil yi xam nga loolu diis na ci murit ba ci canapé fauteuil bi mu nekk dafa ñaan ñaar toog ci ak moom yaakaar naa ni keroog bu ma ko fàttewul sëñ Xaasim Mbàkke moo toog ci wetu ndu yooram waaja kax ambaraga dërëba euh, toog ci wetam waaye bi mu nu firilee wax jooju ñun ñëpp dañoo jàpp ni lii nag mooy mbir mu ne moomu leen fii te bu neexoon genn jigéen du jógee fële ak lu gàttam bu ko neexee ñëw toog fi sama wet te wax na dëgg bi maire bi jógee bi mu ñëwee jigéen la waaye bëtam yépp mooy bëggoon a toog ak dend ak sëriñ bi ndax mooy ganam bu fa kenn néewloo nu muy def day toog fi wetam loolu moo tax mu daan tere ku ànd ak moom bul toog ci suuf addina bi yépp itam xam-xam kese moo ko taxoon a jóg bu ñu masaa dem ba yàlla dogal nit dugg ci lislaam day bég wane ni tukki bi de buñ ci doon def ay milliards kenn kii képp jar na kenn kii kon mooy won na ni xaalis taxu maa li ma tax a jóg mooy développer l'islam li ma tax a jóg mooy jot li woote yonent bi sallallahu alayhi kooku nag duma ci yàgg xanaa kay dama leen di jàngal benn marsiye boo xam ni bi mu fi jógee moom laa tëjee sunu tournée yi doon def ak moom marsiye bu doy waar la woon jamono boobu xëy na ma góor góorgóorlu waaye bu jëkk mënuma ko woon a àggale ndax jëmm jooja ni mu meloon ci noonu feesal dell àddina bi ci ay jàngukaay koo seen tey ma ngay góorgóorluy jàng waaye yàlla ak soññeem gaa tax borom doctorat yee ni gàññit koo wax mu ne ësër laa jóge ba àddina bi daj boobu liggéeyal xam-xam nit mës sa gis lu ni tool keroog ba mu fi bàyyi ko ma ni leen bakatil ardu wasamaau jamia bi faqidin qad kaana isnan mania bi faqidil huda wa tirati saa taaha wa kitaabin atal baraaya safiya sayyidun xaaraba alcinaada fa adxaahu laqan fa adxaahu ala satnihi laqan wa sariica yaa ducaata alislaami man sayaquumu li muhimmaatikum wa yusqi samiica bacda sayqi muhammad ibni xadiimi murtadan kaana xayra aynin nabuuca كان عصنا لعلى علم ودين صير الكل عابدا وطنوا كم يتيم وكم فقير ضعيف عنده صار مسريا ورطوعا لو عددنا مدارسا قد بناها فاتنا جملة تكون نصوها أو رطوها أو عددنا مساجدا أو ديورا في سبيل الإله كانت رفوعا من لذكر الإله من لذكر الإله شرا وجهرا من لتوسيع ماله توسيعا من يسور البلاد شرقا وغربا نصر دين حباء نصرا رفيعا يومه صائم وليل قيام حينما يعجأ الأنام حجوعا ki may wax aalimun aabidun muwaxidu rabbin laa yara xayrahu mudiran nahwa lam yasuq fi lilahi taamalahu billaa walam yusnihi siwa an yutia kaana sayqi kaana sayqi yujibu daawata daai wujjihat min ilahi tawan saria fi Europa wa Amérique bal a xutri حيثما الدين رام منه نهوها حسي الكل من مساجد سيتي ومكاتيبه ولست وضيعا صرت هذه البلاد أكثر منها فرأيت الجميع سمسا طلوعا كان يوصي المريد بسكري دوما وبتطبيق قول رب أطيع كان بحرا لدى العتاء خضما وملاثا لدى الإداء ضفوعا سيد عابد وندب كريم كان برسا لدى العفاة ربيعا يخلد الله سكره في المعالي وجميع الأنام مدحا رفيها فأسوق العزاء من كل قلبي لسوي الشيخ والبنين جميعا wa ala rasihim xalifatuhu albarru sëriñ moora falyadu masmuwa yaa aba mustafa yaa aba mustafa bi jannati xuldin nam anihan walan tara tafjiha bi jiwaay alamini xayri albaraya wa xadimin mukarraman marfuha fa jasaau ilahu xayra jasain وافر بردائه مصفوحا وعلى مصطفاه خير صلاة وسلام ما دام بدرا صفيحا مع آل وصحبه وخديم سينوا الأرض طاعة وصنيعا جدا ما شاء الله بوك جلتي ما شاء الله ما شاء الله لما يتنك في قصيدة بابو مهدي كرب في جوغي ماني سوق جوينا ndax amatul ku mën a sujjóoti ni moom asamaan jooy na ko amatul ku mën a tàllali loxoom kom moom kii daan dugg fii xalwa al bi nga xam ne nii kaana qariban fi haza fi haza al balad di ko dugg fii fukki fan yi ramadaanul mubaarak kon kooku dem na ki nga xam ni njub ñàkk na ko shariatu Mustafa ñàkk na ko téeréem yàlla bi mu daan taxawal guddeem ak bëccëgam ñàkk na kan ci yéen moo ma sa gis Seex mu fada te fekkul alquran ci loxoom kan ci yéen ca biir avion ca biir oto ya ca biir salle ya bi yéen sanga ngoog boo xam ni dafa fekk ndëngte mu jàggi ko ba ca kaw dóor ko aw loosam ci suuf fu mu fekk ndëngte dóor na ko wéet yàlla lool ni mu wéetale woon yàlla dara munu fa àgg bu doon léegi la sax bu ko seex ngay defal ñu ni daa amatul taalib nanguwute boole yàlla ak dara xam nga seex Mouhamadou Mourtada ak lu mu sonn sonn nanguwul ko téye ndax loolu da koo jublu moom ni mu ko déggee mooy sukkandiku ci kudul yàlla bu doon daan bàyyi ko wallaahi du daan dee su ko jàpp abadan ndax bañ a sukkandiku ci kudul yàlla du ko def yàlla rekk la gëmoon waaw kon mbokk yi kenn gënta ñàkk kudul waa lislaam jàngkat yaa ngi nii xam nañu li may wax àggoon nañ ci kaaram yi mu yor ak foo mën a dëkk ci réew mi jàngalekatu lislaam nga doo ci paas ak foo mën a ne ak koo mën a doon waaye du ni rek yoonu murit duñ ci paas wala ustaas yi jàngale ci ësër déedéet foo jàngalee diine doo ci paas mel na mbokk dafa maa wax xaw ma lu tax bind ko ci journal dafa am kër gu mu nekk di jàngale alquran ndax moom loolu looluy métier kon nag bu gisee kër bu am école kay dañ daal di dolliku ci moom mbooloo mooma dem ci sëriñ bi ànd ak ustaas ba kër gaa ngi ci biir Dakar yaakaar naa ne borom mi may dégg ñu wax ak sëriñ bi waxaaleeg moom wax ko li tax ñu ko jaay ndax ki koy jaay amul ko ko jënd ndax nanguwuñoo génne nit ñi ndax alxuraan la dañ fay jàng ak xam-xam ba mu laaj ñaata la ñu ni nàngam la mu génne fay ñu jox koy këyitam mu geesu ustaas ba ni ko jëlal yàllaa la ko jox ba bis bii may waxee yow waa jànkaagaw école di jàngale te kenn du ko doon kon kooku kan mooy nekkati loolu ci lislaam kan nekkoon na sange soo xam ni doomu daara du am lu mu tawat mukk ci àddina loo tawat bu ko déggee taxawte ku gën a ñime Cheikh daal lii may wax man dama koo dund nga am problème ci administration ñu war koo lijjanti mu génne ñaari papier en terre signé kaase ni demal bind ca li nga bëgg mooy wax ci nga wax koy turam ku ñemee loolu defal na ko ñu dul jeex defal na ma ko man nga bind ministre ba laa ko ñu sëñ Moustapha ministre bi may tontu ma daf maa jàppe may ndawoon ni ma waxal sëñ bi ni ko nangam ak nangam te man la ñuy waxal maa bind man la ñuy ñaanal intervention ñaata nit lañu ñu defal loolu loolu moo tax ma ni leen kan mooy taxawati ci yittey doomu xam-xam yi kan la ginnaaw bu sama doomi sëriñ jooju demee kon nekkoon na di sanges diine di merte diine tax di bëgg ci diine baraana jirim bu ñëw mu làq la fat la ba nga mujj doon résistance ci kanamam bu nu doon lim nag ñaata école la tabax ci àddina bi loolu moom xaw ko jàpp naa ni ay junni la damay wax léeg-léeg ma dégg ñu ni jàng école diw ba ni mu réyee nangam ak nangam xanaa xamuloo ni jàngalekat Cheikh Mourtada rek amul benn école bu am lu na toll maanaam limub jàngalekatam amul benn école ci réew mi bu réy réy ba am lim bu toll ni ñiy jàngale ci biir école kon ña ñu jàngal lu ñu kon bu ñu doon lim yooyu école lu nu lim lim am bu nu tëb bu doon lim li mu def ciy jàkk ak li mu def ciy kër tukkikat yi tey tukkikat yi njukkal li ñu war a jox seex Mourtada ba tey xamaguñu ñaata yoon la nit wàcce ci aéroport xamul kër gu muy dal mbaa ka mu woo jotu ko kenn defatu ko ku wàccee da nga naan ana fu kër Sëñ Tuubaa ak dëkk boo mën a nekk ci àddina garaas ngir ci amul solo moo tax man la kàddu kan mooy tuddukatu yàlla ba guddeem ak bëccëgam kan moo daan séddale alal bu jeexee mu dig la jógee nag tukki di door a sañc fële ñuy wooyee forage mu wàcc fa yenn fa ba ngoor jot kenn ñëwul mu ni dafa yaakaar ne ñii mosul dañoo yëgul ni ñëw naa dañoo war a dem ca kër gu mag ga allahu akbar ngir ñiy muslu ñëw muslu man may nëbbutu koy muslu yow ngay dàkk muslukat yi fu ñu baree ak fu ñu lay yégee kooku mooy ki nga xam ni dëkk bu ne wàcc na fa ngir la ngir tasaare diine lislaam dëkk bu ne wàcc na fa ngir la ngir taxawal diine ngir taxawal xam-xam ñaata dëkk yéen xam ngeen ko dem ngeen ana woorkat bu mag bi ana naafilekat bu mag bi te du sonn bis ñëw na ñu nekk ci avion bi te wallaay ci aéroport lañu njëkk a sonné bu laa laata nu amru nekk ci avion bi lu mat sept heures de temps wàcce New York yàgg ci aéroport ba lool guddi gi bëgg jeex ñu dugg ci hôtel bi sama classe bi yëpp nelaw ci kurwaar bi laata ñu leen jox seeni néeg jàmbaar ja kàmbar moom danaan wax ni lu metti boo dee tawat lu metti mu ne xam naa kon yow de bu leen lislaam soxla woon ca guerre ba doo fa dem doo kon kooku mooy ki nga xam ne lislaam musu cee ñem ab coono dara du ko ci sonal kon léppam liggéeyee lislaam la kon yal nañ ko yàlla fayal bokki jurit yi roy téef lañ ñii lañu war a roy ñii ñoo jël seen dund jox yàlla lépp jox yàlla lépp bàyyi luñ ko dara tabaxaluñu yàlla lu seen bakkan dara ci àddina bi lépp yàlla lañ ko jox ku mel noonu nag école la nu di ko fàttaliku bu baax a baax di fàttaliku gëm yàlla gi ñu amoon di fàttaliku dëgg gi ñu amoon Cheikh Abdoulaye Ahad dëggu ga ak wér ga ak ñàkk ga mbóorant da daan wax ni bu ma waxee ñu defee ni damaa mer dafa fonk li muy wax rek dafa fonk li muy wax ndax lu muy wax daf koy wax ci fulla daf koy wax ci dignité te lépp lu mu yi itam da cay dem ba jeex dafay dem ba jeex àddina it noonu na moom du xuloo du mer ba ñu ko da ngay day mer mu ne déedéet mënu maa mer ndax lii tax a mer ci àddina dara du ci dal lii taxaw a xuloo dara dalu ma ci mooy bëgg alal ak daraja du ma xëccoo alal du ma xëccoo daraja kon nan lay xuloo kooku du xuloo kon doomam sëriñ jii di Mbàkke Abdul Ahad xafisahullah wa raa dafa may nettali ni ma bis bi mu mujjee gisee sëriñ bi nga xam ne benn bisu ci topp mu wuy ji moroomam lam ko doon diis fekk ñu doon wax ci mbirum suuf mu ni ko du xaadir suuf kenn du ko xëccoo ndax dañ ko fay fekk te dañ ko fiy baax loo xam ne dañ ko fekk te dañ ko fiy bàyyi dee su ko xëccoo yàlla na yàlla defal dégg bu topp te teg na ca yoon wa gaa yi nekkoon noo ngi jéggulu nin ko bëggee woon manewuñ ko ni ndax na dañoo ragal sama gaa yi sama gaa yi dama leen ragal lool lool lool lool yàlla na yàlla taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bismillahi irrahmani irrahim sala allahu wasallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñépp ku ci nekk sa tur ak sa sant nuyu bi lislaam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi cheikh mohamadul muntaqa xafizahu llahu wa kilifa barab bi ñu toog muy cheikh sidi mbakke xafizahu llahu wa raahu di nuyu kilifa yi fi toog yépp di dellu itam di sant di gërëm sunu waayjur wi sunu sëriñ bi sëñ seex xaw Balla Gaye ci eh, soññee bu am solo bi ak leeral bu am solo bi nga xam ne def na ko di nuyu Serigne Chouaïbou itam xam naa waxtaan wi moom amul lenn luñ ci mën a yokk ndax suñu làmmiñ maanaam tële naa leeral suñu xam-xamit bariwut su fekkee xam nañ dara sax waaye niñ ko waxee ci tomb bi ñu doon waxtaanee muy liggéeyal xam-xam ci yoonu murit day tomb bu amam solo rawat na jamono jii bu ñu seetloo Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bi mu dikkee téere yi mu njëkk bind lu mel ne masaalik boo xoolee daanaka li muy def mooy di qiraa di jàngat ak di leeral ñàkk tegu ci yoon àddina sépp moo xam seen doxalinu àddina la moo xam seen doxalinu diine la loolu wax na ko fu baree bari wax na ko ci yeneen téere hada wa innama alayhi almuqtafa li katrati aljahli ala nnaas ixtafa nga xam ne jafe-jafe yi àddina yëpp mi ngi ko delloo ci ñàkk jàng réer moo tax eh, matukaay yi mu njëkk a jël mooy dundal xam-xam moom ci boppam tàgget boppam ci xam-xam boo xam ne kenn xamut dayoom ndax Eh, jamono jooju daanaka li gënoon a siiw mooy al al muthaqaf an nas yi maanaam koo xam ne day jàng texte yi rek jàng téere yi te sax léeg-léegi dafa mel ne dégg ga waroon a am dëgg-dëgg day des waaye beneen beneen côté bi mooy li may tudde al munas al al muthaqaful kashfi maanaam koo xam ne danga it xam-xam-xamu baatin dafa dafa manqué woon moo tax Sëriñ ñaar yëpp la gaaw euh, maanaam yanu ci ba fees dell ngir mën a xet li wa àddina boo xoolee ci wàllu nas yi day wax ne warathani fiqh al imaami maliki alayhi ridwanu alkarimi almaliki nafaatani li kunta bilmanafii wa qutta li fiqh al imaami alshafii وجهت لي من منك منى لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا قد قدت لي فقه nga xam ne ñeenti ngir boroom xam-xam yi gënoon a mag ci lislaam dem na ba wax ne seen xam-xam yépp dond naa ko kon day daal nekk al muthaqaf an nas nag boo xam ne eh, day doy sëkk ngir xet jamono loolu itam ci lay wax naan laqad jaakum qassana kulli mujammilan wa uxyi uluma diini nassan wa mashruha waaye itam ci benen wàll bi itam lu ñu miin muy wax ne allamani llahu alalim <clears throat> mimma yashaau min ulum wa daba qitli bi kulum munsarifan bi safadi nga xam ne kon njëkke mooy géeju ci xam-xamu zahir géeju ci xam-xamu baatin ndax ki nga xam ne moo war a xet li nit ñi ci jamonoom li muy jiital ci li muy yore mooy xam-xam man talaba al wusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batinin an sabil an yaquduhu bil ilmi wal ibada maanaam ki war a xet nit ñi jamono yi li mu war a wommate nit ñi mooy xam-xam ak jaamu yàlla nga xam ne xam-xam la jiital ci loolu mu soññ ñëpp ci jàng daana soññ ndaw ñëpp jàng yaa sibyaanu la tashghilu anil huda wa bil ulumi shghilu daana soññ itam waxambaane yëpp ñu jàngi yaa maachara subbaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal tàmbali nag di wane yoon bu bees ci xam-xam mooy ni ñu ko waxee jamono jooju dafa nekkoon jamono joo xam ne nit ku ñuul lañ koo xeeboon lool ci wàllu xam-xam sëriñ bi nag wane ne loolu wërta am moo tax lim njëkk a wane mooy al iktifaau zaati fi l majaali l maarifi mooy am autosuffisance maanaam ci wàllu xam-xam man demal sa bopp mu taalif ay téere yu baree bari yoo xam ne waxtu du may ñu koy lim ñu fi toog ñoo koy gën a xam tàggetit ay boroomi xam-xam yu baree baree bari ci yoonu murit mën ngaa tudd borom daarul Muxti radiyallahu anhu mën ngaa tudd Serigne Mbacke Bousso radiyallahu anhu tudd itam njabootam gu tedd gi nga xam ne ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam la ñoo xam ne seen dayo seen xam-xam kenn mënta natt dayo bi tasaare itam yoonu murit itam yàgg nañoo am taxawaay ci dundal xam-xam ndax dafa nekkoon lu mënta ñàkk ci jamono ji niñ ko waxee mu taxawal daarul alimil xabiir teg fa taalibeem sëriñ daam abdourahman Lo ñépp xam nañ ko waaye itam bokk na ci jàngukaay yi nga xam ne yoon mu murid taxawal nañ ko te ngeen tudd ko al azhar al cheikh mouhamadunil mourtada radiallahu anhu taxawal ko muy jàngukaay bu am solo te am njariñ lool ak e, ni ma ko tudde léegi borom daal moo ti itam jàngukaayam di woon jàngukaay bu am solo boo xam ne borom xam-xam yu baree baree bari génn nañ fa waaye Cheikh Mouhamad Dem radiallahu anhu ca Jurbel moom it di borom xam-xam bu mag mag boo xam ne ñu baree bari génn nañ fa ak it jàngukaayu Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana ak jàngkaayu ku mel ne Cheikh Abdourahman Bousso ak jàngkaayu Cheikh Habibullahi Mbakke ak jàngkaayu Cheikh Saalih Mbakke radiyallahu anhu yooyu yëpp di jànkaay yu am solo yoo xam ne liggéey nañ ci askan wi ak ndaw ñu lu bëree bëri ak jànkaayu euh, Cheikh Abdourahman Mbakke Daarul Muhti ñëw ba ci sëñ Cheikh Mbakke Gaynde Fatma jàngukaay am solo yi nga xam ne taxawal na ko ak ci daarul maarif bi nga xam ne eh, sëñ as moom tàggat na fi ñu baree baree bari kon yoonu murid dafa yàgg am taxawaay ci xam-xam xanaa fi ñuy daaneele rek mooy cheikh abdul ahad eh, mbakke radiallahu anhu ci maktaba bi nga xam ne defoon na ko fii dafa am lu am solo luñ ci war a jàngate mooy dafa dikk fekk ñu dajale maanaam turaas dajale ndono ndonol xam-xam waaye nag dajale ndonol xam-xam taxul nga jariñoo ko man da ngay da ngay amaat xam-xam ngir mën koo jariñoo nga xam ne kon université bi mu doon tabax ak bibliothèque bi mu taxawal loolu lépp mu ngi doon woote ci gën a xóotal xam-xam ngir mën koo jariñ ngir mën a jariñoo ndono loolu ndax euh, dañuy wax ne ñun jullit ñi ndono li nga xam ne jëlee nañ ko ci euh, mag yi lislaam yi dañ ko war a téye ak suñu fukki loxo ndax ñun dañoo wuute ak tubaab yi tubaab yi saa boo ne am nañ li ñuy wax nahda mooy renaissance jugaat dañoo mabbu li ñu yoroon daanaka tegaat fa lu bees moo tax ñoom seen turaas daanaka euh, dañ koy tuddee maanaam turaas inqitaax yi bu dee nag ndonal xam-xam li nga xam dañ koo jële ci jullit ñi dafay nekk turaas ittisaal yi wërta nekk loo xam dañ ko war a bàyyi bépp nëx da boo xam ne am nañ ko ci kawam lañuy taxaw ngir am ko mu mel ne kon loolu mu doon taxawal ci ay jàngukaay mi ngi doon bëgg a euh, takk wiin jiil rabbaani koo xam ne danañ mën a gas ndonoli danañ ko mën a eh, istismaar ba gën koo mën a jariñoo kon xëy na waxtu wi dafa gàtt waaye eh, yoonu murid moom li liggéeyal xam-xam suñ ci doon wax daanaka fii lañuy fanaan kon xanaa ñu yemale foofu kàddu yi rek. di kilifa njaboot bi di seen jëwriñ maa ngi wax ci turam ak délégation bi nga xam ne ñoo fi jot a njaboot bi ak ñi fi teewu muy góor ñi ak jigéen ñi ak mbooleem rakki sëriñ maam moom ak mbooleem njaboot gi moo xam ay sët lañ wala ay taalibe leen xamal ne waa kër Cheikh Mamadou Nortala gépp ñu ngi leen di jot jorot li cant boo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ndax jëf ju rëy yi nga xam ne yéen Cheikh Cheikh Abdou Lahad Mbacké def ngeen ko jëf gënul ko rëy ci cadre jokku bopp ak rafetal muy luy tax lu dalal xel loo xam ne jii ko luy rafet yoo xam ne bu mag yi dellu si waatoon itam du ñu danañ buñ dellu si waatoon du ngeen du ngeen du ngeen eh, jàkkalaat seenu toogee ndax lii dara jiitu ko ci sàmm trace bi ndonaale ndax ñaari jàmbaar yooyu nga xam ne ñooy sunu ñaari jàmbaar yi mooy Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadou Mourtada seen diggante moom man nga ne ajjuma ko gaaw la dara doon ginnaaw bi leen yàlla boolee bokk ñu bokk muy Cheikhul Khadim dañoo bokk euh, waar wu ñu doon yëngu te mooy jëmale jikko yu rafet ca kaam rek ak tasaare ko ci nit ñi Cheikh Abdoul Ahad kenn ku ne xam na ne eh, ak saraamam aku ñeme dëggam tax na ci xilaafaam ñi nga xam ne ñoo ñoo gane àdduna ci xilaafaam xamuñu yàqu yenn yàqu-yàqu jikko yi te loolu ab liggéeyam yàlla mayoon na ko itam ci éloquence saa bu yëkkatee kàddoom ñépp a koy déglu du murit bi rek du jullit bi rek waaye képp koo xam ne ku bëgg lu baax nga da ko diglu ndax da nga xam ne njariñ rekk ciy génne moo taxoon ni ko sëriñ ustaas Cheikh Gueye doon waxee léegi sëriñ Saliou Mbacké bokk na ci lam ko waxoon ca eh, xasida googu mu defoon kit naa nazunnu ida waqafta muxaatiban lawla al aqidatu qad bu'asta rasula saa boo yëkkate sa kàddu rek bu dul woon aqida dañu naan yàlla lu yónni ndax wax ju jot wax ju dëppoog alquran wax ju dëppoog li fi yàlla yónni woon yonent yi moo tax ku ñuy wax Tubay si benn ambassadeur Arabie Saoudite nga xam ne dafa bokkoon ci famille royale bi mos nañ fa dem sëriñ bi dem fa te ma fekk woon jotaay ba Touba si di yéemu ci sëriñ Abdoul Ahad nee na bu mosaan ñëw dafa ko daan dafa ko daan téye ñetti fan fii di ko yëgloo sax ci soroor di yéem sëriñ Abdoul Ahad ci bëgg nitam ak yëg nitam waaye li ko ci gën a yéem la muy yéem mooy mooy ni mu mën a alxuraan nee na alxuraan moom moom lu ko yéemoon la ci moom ni mu ma ne woon alxuraan muy muy wax sëriñ bi ne ko yéen daal famille ngeen boo xam ne yàlla daf leen a jagleel loo xam ne jagleelu ko ñu bari ci jullit ñi tubay si eh, bokkoon na ci lam eh, waxoon sëriñ Abdou Lahad ndax ci famille royale bi nga xam ne daf ko wax ne ko Fahdu roi Fahdu daf ne woon sëriñ Abdou wax ma seen mboolem projet yëpp muy jumaa jeeg université beeg yëpp mu financé waaye Serigne Abdou xam ne ko liggéey Serigne Touba moom du ma ko bàyyi kenn. gis nga boobu boobu personnalité. Hmm. ak dignité boobu. damay damay lu ma yor dama ko ci def ma ci waay ma defal la ko ci. waaw digg ma noonu mu meloon ci Serigne Mourtala ni la meloon ci doomu Serigne Touba yëpp maa ngi dégg rek ci ku baax koo xam ne. Euh, mu ne Serigne Serigne Moutala moo ko nettali nekkoon Serigne Abdou day taxawaay bii mu ñu taxaw bu fi sëriñ bi nekkoon itam du ko mën a weesu kon loolu moo di bokk kon yoon waa ngi noonu kon lii xale yi def lu dal xel la ah, yàlla bu leen yàlla yàlla bu leen dara dog yoon waa ngi noonu daal man ñi xal nañ yoon wi bu ñu dellusi woon itam seen xel dana dal ci gone yi kon yàlla na yàlla mot li yéene yi ñi nga xam ne daal mboolem njaboot bi ci turu sëriñ Maam Mor ak mboolem njabootu sëriñ Murtada muy rakk yeeg sët yeeg taalibe yi ñëpp eh, mbég nañ mbég mu am fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ndax jëf ju rafet la lii rek mooy li am solo mooy wane jikkoy mag ñi ak jàngat ko ba génération yi nga xam ne dañuy ñëw man cee jariñu ndax jikko mooy réew ni ko woykat boo xam ne innama umamul axlaaq ma fa in moo dahabat axlaaqum dahabum kon ngir bañ a guddal dama bàyyi sama jarbaat mu tuddaa Mbacke Dende mu ñëw àggale kàddu yi ci des ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye itam di nuyu Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njabootug Cheikh Abdoul Ahad gépp ñu ngi leen di nuyu waaye itam di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Xabbaan. mu Cheikh Mouhamadul Mourtada ci teewaay bi mu fi teew ànd ak njaboot gi di doomi Cheikh Mouhamadul Mourtada yi fi teew ànd ak moom bokk na ci sëñ Sidi Mouhamad ak sëñ Haroun ak sëñ Cheikh ak mboolem njaboot gi fi teew di soxna yi ñoom ñépp ak mboolem sëti Cheikh Mouhamadul Mourtada yi man mii ànd ci ak ñoom kon ñun ñëpp ñu ngi jël sunu kàddu di ko teg ci loxol Cheikh Mo Cheikh Modou Xabbaan muy nuyu mbooloo mépp daanaka mën na maa wax ne rek kàddu yi xëy na day ndigal waaye li sëñ Xabbaan wax doy na sëkk ndigal la loo xam ne it nag ab taalibe ndigal rekk la mën a wéyee bàyyi ko ci koo xam ne it ak xéram ak bëggam lu baax jàpp na ne lu mu wax du doy ba tax mu yabal ñu fi ngir ñu war ci yokk lu mu néew néew li koy firndeel sëñ Modou Xabaan mi dakaar la jóge ànd ko coono lool waaye biñ ko ko waxee mboolem yitteem yu mu amoon yépp daf koo bàyyi ngir teew ci jataay kon loolu yitte la ak yéene waaye ab coonaam ku ne xam na ne ku jóge Dakar ci suuf ba léegi ànd ko coono kon loolu dafay firndeel ak yëpp bu mu yëg bis bi ak yittewoo bu mu ko yittewoo sañ damaa digal itam ndax man damaa wax ne sëñ Modou Xabaan euh, sama nijaay la sama maam la sama doomi tuddee te mooy sama maam sama maam ko jur sëñ Modou Xabaan sama maam te moo jur kon Euh, ku kon bu may wax it tam wax ci turu njaboot bi xëy na li ñuy wax noonu mu dale ci sët yi la jiitu mooy ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa yi mooy rafetlu lii nga xam ne moom la ñu amal te mooy bis bu toll ne bisu Cheikh Abdoul Ahad ñu duppee ko Cheikh Mouhamadul loolu nun sët am na jàngat bu rëy rëy rëy buñ ci war a jàngat ci diggante Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Mourtada dana jafe loolu itam ñu waxtaan yi seen i jëmm ndax Cheikh sëñ Cheikh Awa Balla waxtaan nañ seen bla sëñ Sidi Mouhamad ak mbokk mu ko àndal def nañ documenté ci Cheikh Mouhamadul Mourtada te seen bla sax boo bëggee waxtaan ci moom danga dul xam looyoo ndax koo xam ne loo tudd def na ca la mu war a def lépp koo xam ne def na la mu war a def lépp. ndax moom li mu fekk lépp yeesal na ko li mu fekkul lépp def na ko kooku koy waxtaan moom ci looy wax ndax loo wax rek da nga bàyyi la ci des kon day mel ni simple laa def na lépp ku def lépp nag lañ war a jàngati ci moom noonu ndax Sëñ Tuubaa ak njabootam ak ñi mu doon yar daf leen a doon loon saxaaba yi boobu tuddee ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa mën nga jël tudd ñu bëree bëree bëree bëri ñu nuur la diw sàngam ca saxaaba yi ñu nuru la tur sàngam ca saxaaba ya sëñ mii man ko koo jox jëmmi Sidna Omar ci njàmbaar ga ca fit wa ca dogu ga te dëggu ga te loolu lépp nag matale lépp ci wàllu lislaam sëñ laat ci wàllu daayira yi sëñ ci wàllu njabootu Sëriñ Tuubaa yi sëñ ci wàllu taalib yi sëñ laa ci wàllu bitim réew sëñ laa ci wàllu gépp foofu dugg rek sëñ laa dafay mën sëkk mooy sëñ laa kon li mu war a def lépp ci àdduna def ko loolu nag noonu jàngat bi ñu ci war a am kon ndax noonu dañoo yaafus ñun sët yi ba lan moo tax sëñ laa dugaluñ ko ci biir école yi di ko jàngale jàpp naa ne bu senegal jàngale woon jëmm yooyu muy Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem ñi si Tuubaa yaroon kon jàpp naa ne dana doy sëkk ñu am ñu ñuy roy ba du jar sax njaboot di di royi ñeneen kon jàpp naa ne jafe-jafe bi njëkk am rek mooy ñàkk ay sëñëb laa duñu am ndax boo xoolee Serigne Touba ñi mu yaroon doon loo leen saxaaba yi tey koo ci tudd rek am na ku muy nuru sëñëb laa li tax ma nuróole ko Seydina Omar dafa jëf-jëfi naa Omar ndax Seydina Omar dafa xëy benn bis wax ne fas wa nekk Irak di dox ba fakkastalu dama jàpp ne bu ëllëgee suñu borom mën na koy laaj moo tax Sëñ Abdou ci wàll gépp muy dëkk bi njaboot bi taalibe yi jàpp na lépp responsabilité am la responsabilité bi nag rëgalu ko lam ci war a def lépp Sëñ Abdou def na ko kon jëmm la joo xam ne nii xuta waxtaane ndax kàddu boo ci tudd rek dafay mel ne foofa da fa am loo fa war a bàyyi te foofa dafa mën si kon gën ñu ngi sant mbokk yépp di leen rafetlu lool li nga xamante ni bii mooy euh, teewaay bii nga xam ne moom lañ am tudd ko jëmm ju tedd jii di Cheikh Mouhamadoul Mourtada kooku ñu ngi ko ñu ngi wax ci turu sët yi sunu kontante ak sunu euh, yéene ju ju rëy di wax na ne itam jàpp naa ne am na liggéey bu rëy rëy rëy boo xamante ni bii mi ngi ñuy xaar ci fexe ba jàngal Sëñ Abdou Lahad ci école yi fexe ba nit ñi itam roy Sëñ Abdou fexe ba ay Sëñ Abdou Lahad fi ndax bu ñu xoolee adduna si nëgë ni waroon nañoo fekk ku ci ne ñu ne am nañ lu ma nangami seeb laal waaye lekk léeg da ngay dox ba ci yàgg gis loo xam nga ne ah, lii de bu fekkoon seeb laal ndax kon seeb ay seeb laal dafay amul loolu nag ab liggéey la boo xamante ni bii bu bu bu war na ci mbooleem koo xamante ni bii ab murit nga wala mbooleem koo xamante ni bii ab sët nga wala doom nga nga taxaw ci loolu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk kon ci turu sët yi ci turu sëñ Modou Xabaan ci turu Serigne Mamor ñi ngi sant mboolem sëriñ Cheikh Abdou Lahad yi di rafetlu lool jataay bi nga xam ne am na te jataay bi liñ ci war a jàngate rek mooy taxawaayu Cheikh Abdou Lahad ci yoon wi taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mourtada ci yoon wi nun loola lan moo ci sunu taxawaay ba bu ëllëgee itam tey foo ñu taxaw man leen a wane ñu taxaw itam melokaan woowu itam nekk ci suñuy jëmm ba faj daan nawe Cheikh Abdou Lahad bu ñu gisee jëmm yi nga xam ne ci ñoom lañ bàyyi ko ñooy itam ñu mën leen naw ci wàllu boobu kon xam naa kàddu yi mën a gudd ndax li tax du man la gudd mooy dañ jot xam fu ñuy waxee ndax koo xam ne li ma waxoon léegi rek bi may tàmbali sëñ laat ki ci waroon a wax wax na ci sëñ laat boo doon wax ci moom it moom li mu waroon def lépp def na ko xam nga day mel ne nga fekk koo xam ne li mu war a def lépp def na ko na ko lim fekkoon yeesal na ko lim fi fekkutoon def na ko kooku booy wax ci moom lan ngay wax ci kon jàpp naa ne koo xam ne la daal war nañoo jàngaat dëgg-dëgg Cheikh Abdou laat war nañ ko dugalaat ci biir daara yi nit ñi jàngale ko lu bari nag bu ñuy wax tur yi dañ naan sëñ Abdou Lahad dafa baaxoon sëñ Abdou Lahad dafa nangamoon sëñ Abdou Lahad dafa nangamoon dafay mel ni dundug sëñ Abdou Lahad dafay des mi ngi mel ni li sëñ Sohay bu doon wax léegi ci Senghor umpale gi umpale sëñ Tuubaa dafa mel ni umpale googu bu ko raw umpale nañ ko njabootu sëñ Tuubaa gi umpale nañ ko itam mboolem li taxawri du dëgg-dëgg sëñ Tuubaa ndax jàpp naa ne jamono ni mu yàqoo nii ak fii adduna si toll ci ak yàqute sëñ Tuubaa dëgg-dëgg buñ ko xam ne woon jàpp naa ne jamono nit ñi danañ nit ñi dañu tegu ci aw yoon li ko waral mooy Sëñ bi mu ñëwee lam xam ne yonante bi ba taxoon ña ko toppoon ñëpp tegu ci aw yoon ndax loolu dafay jóge wala ndax nañ ko war a xamlee wala ndax nañ ko war a leerale dafay dafay dafay dafay dafay ëmb wala déet te bis bu set nga dégg ci rajo yi ku yëkkati kàddu ci Sëñ wax ba doyal keneen ak keneen wax ci seen diw wax ci sëñ diw te ba léegi yàqu gi mi ngi fi gën a bari ba léegi réer gi mi ngi fi bëri bëri kon dama jàpp ne delluwaat jotaat nañu xool njàngale mi Sëñ Tuubaa daan jàngalee ak nam ko daan jàngale ak nam ñam ko daan jàngal ak nañ koy jànge ak nañ ko daan jëfandikoo ñuy jàngalee noonu di ko jàngalee noonu nañ ko war a jàngal ñu koy jëfandikoo ngir ñu mel noonu kon jàpp naa ne boobu dafa bu baax baax a a baax loolu nag jàpp naa ne dara gënu cee euh, kawe dara gënu cee am solo jotaay yu mel nii ñu koy faral di amal ni koy faral itam di di gisee di faral di daje di gën a gëstu dëgg dëgg dëgg sëriñ Touba nan lañ ko mën a jàngal nit ñi bañ xam kan mooy sëriñ Touba xam sëriñ Touba nag weesuwul mooy ni sëriñ Touba daan doxe nga koy doxe ni sëriñ Touba daan jëfe nga koy jëfe ndax sëriñ Abdou Lahad Kan mboolem li ñu la fi wax ne def na ko ci lu baax téewul bi mu koy def itam wax na lu leer ndax dégg naa ci kasetam mu ne képp koo xam ne ànd nga ak man te teguwoo ci yoon siraatul mustaqim jëfoo lu baax na xam ne sama responsabilité génn na ci yow te loolu sëriñ Touba wax na ko ndax bi muy leeral yow ma yafirul maru ci benn mag moo ko doon laaj ne ko yow ma yafirul maro de suñu borom tabaraka wa taala dafay wax ne bu ëllëgee bàyyi day daw doom doom di daw bàyyi xarit di daw xarit mbokk di daw xarit suñ tubaa dafa ne loolu mott lib aaya la waaye du bi dëgg dëgg dëgg mooy waajur bu xamee aw yoon aw ca awale ci ak njabootam njaboot ga nangu caa jaar kooku udxulul jannata antum wa aswaajukum tombaaru lay doon waaye nag waajur bu xamee aw yoon aw ca awale ci ak njabootam njaboot ga nanguwuñ caa aw kooku fala ansa baynahum yawma isin wala yatsaa'aluun doon waaye nag waajur bu xamee aw yoon aw ca Ah, awu ca awaliwu ca ak njabootam kooku waqifuhum innahum mas'ulun lay doon waaye nag waajur bu xamul aw yoon aw ca awaliwu ca ak njabootam kooku yow man yomful mawru doog a ñëw kon loolu mën nañ cee jàngat ne nag Cheikh Abdou Lahad leeral na ne njaboot gépp képp koo xam ne tegu nga ci aw yoon tegu ci siraatul mustaqim boo ëllëgee aaya bay wax udxulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruuna yaa ngi moom a koy ànd waaye ku ci jaarut itam moom jaaral la la ca kooku it fala ansa baynahum lay doon kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci turu Cheikh Sëñ Mamoor ci turu Sëñ Moodu Xabbaan ci turu set yëpp ñi ñu ngi leeral ne sunu lott ak sunu ñàkk a mën a wax moo tax li ñu bëggoon a wax lépp mënuñu koo wax waaye daal bu fekkee euh, dañuy wax ne lu neex wala dañuy wax ne dëgg-dëgg mbég ci biir xol nga koy fekk yaakaar naa bu ngeen duggoon ci suñu xol da ngeen yëg ne kon maanaam rëy na ci ñun lool ba jàpp naa ne sax lool moo war a tax li ñu bëgg a wax dëgg-dëgg mënuñu ko génne kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla itam Cheikh Abdoul Ahad mii ñuy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala gën koo yokk ay leer gën koo yokk ay xéewal ba ak mbooleem ku fa fekk ak mbooleem ku ko fekk lép suñu borom tabaaraka wa taala jéggal leen te leen ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad ci barke bis ñu ngi sant ñëpp leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax ci pakk bu tedd bii di kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci turu ahfaadu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yépp di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullahu warahaahu di ziar di nuyu Cheikh Sidi Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni mooy sunu kilifa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér di ziare bu baax sunu sang yu baax yi toog yi ki ci ki nekk ci bopp bi di sëriñ Amsatu ibnu Cheikh Abdoul Ahad euh, pep feggoo ak sëriñ Xaadimu Nooru moom sëriñ Abdoul Ahad kon ñu ngi leen di nuyu ci turu njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp di sant bu baax nag ci jotaay bii di ci sant yàlla mi nga xam ni may nanu ñu fekke ko ci euh, jàmm waaye ñu ngi beral loxo ak i cant ak i ngërëm yu bàyyi ko ci xol jëmee ko ci njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada gi nga xam ni wuy nañu wuyu si boo xam ni kawe na njort lool di ci jiital ka nekk ca bopp ba di sëriñ Mamour Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadinil Mourtada ndax biñ ko ko waxee bi mu ko yëgee fasaase saase rek dafa daal daal du ñuy boole da ko fekk cib tukki da dañoo boole ak sëriñ Fallu moom Cheikh Mouhamadinil Mourtada ñu toog ak moom waxtaan ak moom ba lépp tege ci yoon waaye loolu doyut bi mu dellusiwaatee dafa daf ñoo woolu ñu toog ak moom mu wax ñu digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad waaye leeral ñu lu bari ci diggante Cheikh Mouhamadinil Mourtada ak ak ak Cheikh Abdoul Ahad ba sax nettali nañu ni euh, aj gi ñu njëkk aji Serigne Abdoul Ahad moo ko yóbbu woon ngir mu ajali Serigne Mamour Anta Sali ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal di ci sant njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada gépp ndax ki nga xam ne moo ko doon coordonné di Serigne Mourtala mu Serigne Lamine Lo ñu ngi koy sant bu baax moom itam ndax def na ci taxawaay yu am solo ba ko yëgee ba léegi euh, amul jàmm dana lim ci li ko ci war lépp wax dëgg yàlla def na ko ci kon njabootu Cheikh leen sant di leen gërëm di leen ñaanal. suñu borom sàmm leen te aar leen ba lépp li ngeen yéene ci yoon wi ngeen àggale ko ndax Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla dafa dogal euh, lii ngeen wax ci moom ndaw ñëpp génération bii nekk di dund di dund xam di dund sëriñ bi xam nañ mooy kan ndax juróomi nit yoo jël ñaar ya maîtriser nañ langu luxatul quran mooy langu diine te jëmmi Cheikh Mouhamadul Mourtada ji moo ko waral te loolu lim daan def ci nit ñi ci jaarale ko ci baatin moo ko ëpp fopp ndax sëñ Xalil mu sëriñ Habsa dafa dafa ma mës a nettali ni dafa doon def benn conférence ca Cape Town eh, ci Afrique du Sud benn tubaab ñëw laaj ko ne ko yéen damay gis bu ngeen di waxtaan da ngeen di wax bay bëgg a dee te du ma gis kenn di tuub te sëñ Cheikh Mouhamadul Mourtada nit ñi moom bu musaa ñëw day toog rek nit ñi di ko xool di tuub di dugg ci diine ne ko loolu lan moo ko waral. sëñ Xalil ne ko ñoom euh, dañoo jege yàlla ba nga xam ni suñu borom def na ci ñoom leer goo xam ni képp ku leen gis rek dana la xëcc ba nga mën a gëm yàlla. Mm-hmm. leeru leer googu nekkoon na ci moom kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci ni ngeen ñu wuysee di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax mboolem kilifa yi nga xam ni ànd nan ak ñun jàppale ñu. ci liggéey bi ba ba mu sotti ci nañ ko bëggee loolal ka ca jiitu euh, di kii suñu euh, kii di Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad di suñu kilifa ñu ngi koy sant di ko ñaanal bu baax a baax ndax taxawunu ci zahir taxawunu ci baatin ñu ngi sant bu baax itam euh, Abdoul Ahad ka monsieur ci turu njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp ndax yàgg na noo jàppale ci ba ba mu doonagul sax maire ndax euh, fukk mën na fukki at ci ginnaaw lépp luñ soxla da ciy taxaw waaye tey ji itam taxawu nanu bu baax a baax ci ñaari anam yëpp ci anam gi mu fi nekkale euh, ji jiitu gi mu jiitu nekk ci kanam ñu dénk ko dëkk bi ak taxawaay boo xamee ni euh, yëg na ni ci kër gi la bokk taxaw na taxaw yu am solo kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom sàmm ko te aar ko li mu yéene ci dëkk bi lépp suñu borom may ko kattan mu àggale ko ñu ngi sant bu baax it Serigne Fallou Mbacké mu Cheikh Mouhamadul Mourtada ci ay jëfam yoo xam ni def na ko soxna maam Xari Mbacké Mourtada ak soxna Musli moom Cheikh Abdoul Ahad soxna Njaxat Daba mu Cheikh Abdoul Ahad soxna Njaxat Baye soxna May moom Cheikh Abdoul Ahad soxna Kolle mu Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Ahad Jaxate Serigne Basiru Xaadim Xawaba ak Serigne Maam Cheikh Xaadim Awaba Ayes ak Serigne Amsatou Diakhaté moom itam euh, di chef de village ba tey bokk na ci délégation yi fi teew waa kër Cheikh Ibrahima Sarr Diagne teew nañ fi waa kër Cheikh Ahmadou Fadiama Niang ñoom itam teew nañ fi ba noppi ànd ak seeni jëf yu am solo ñu ngi sant bu baax it euh, école euh, bépp sepkaam bi nga xam ni Serigne Amsatou Diakhaté mii mooy modir ba soxna Maymunatu ibnu Cheikh bintu Cheikh Abdoul Ahad eh, eh, moom ko di kilifa ga moom itam ñoom itam taxawu nañ ci bis bi taxawaay yu am solo ñu ngi ñaan suñu boroom gën leen a sàmm gën leen a aar waa kër Serigne Mbacke Kajoor ñoom itam teew nañ fi waa kër Soxna Faati Mbacke Penda bintu Xaadimu Rasul ñoom itam teew nañ fi waa Touba Belel jëf jël ñoom itam teew nañ fi di ñu am ñu am pësteef ci luy jëmale jëmale kanam dëkku Cheikh Abdoul Ahad bi la Touba Belel euh, association famille ngay ngay ñoom itam teew nañ fi daa daaira doomi donge yi ñoom itam jëf nañ ci jëf yu am solo ngir jëmbi Serigne Abdoul Ahad daaira donge yi ba tey ñoom itam bokkut ak doomi donge yi daaira doomi donge yi waa kër Cheikh Abdoul Ahad ba tey euh, maxtar Ba ministre des sports moom itam jëf na fi jëf yu am solo waa kër Cheikh Ibrahima Sarr Serigne Maam Cheikh Sarr moo leen fi teewal fédération dongo yi waa kër Serigne Abdoul Ahad waa kër Serigne Abdoulahi borom dër bi ñoom itam teew nañ fi Serigne Abdou salaam moom Serigne Cheikh moo leen jiite. waa kër Cheikh Mouhamadul Basir ñoom itam teew nañ fi Serigne Abdoul euh, waa daairatu Muxaddamatul Xidma Serigne Abdoul Ahad Bousso Maasta moom itam moo leen jiite. njabootu waa kër Cheikh Saliou Mbacke teew nañ fi ci jiital Cheikh ma sëñ Mourtada Kebe ak Serigne Serigne Khadim Mbacke mu soxna maam Bousso ak sëriñ Khadim Mbacke mu Serigne mustafa Habsa waa kër Serigne Bara Dianna Serigne Mbacke Dianna moo leen jiite waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Jazbul Murid Serigne Modou Fall Hamdi Yacine waa kër soxna Fati Penda bintu Cheikhul Khadim Serigne Jili Mbacke waa kër Serigne Mbacke Kajoor Serigne Habibou Mbacke waa daaru salaam sëriñ Hamid Mbakke teew na fi waa kër sëriñ Moussa Halima Guèye sëriñ Xaadim Guèye waa kër cheikh Mouhamadou Nil Fadal sëriñ Xaadim ibnu cheikh Abdoul Fatah teew na fi ak sëriñ Mourtala moom sëriñ Abdoul Fatah ak sëriñ Souaybou moom sëriñ Abdoul Fatah waa kër soxna Khadija ñoom itam teew nañ fi sëriñ Abdoul Ahad ibnu sëriñ Mbakke Fadiama waa kër sëriñ Ibrahima ibnu Xaadimul Rasul sëriñ Mbakke Madina ibnu sëriñ Dam Atta moo leen jiite waa kër sëriñ Balla Fall jang sëriñ Abibu jang waa kër Cheikh Ibrahima Absa moom Mam Mor Anta Sali sëriñ Cerno Mbakke moo leen jiite waa daairatu Sullamul Wusul sëriñ Abdul Ahad Bousso Mawlaay waa kër sëriñ waa kër sëriñ Balla Coro sëriñ Abdourahman waa waa kër waa kër sëriñ Alhaaji Mouhamadul Amin Baara Mouhamadul Fadal ba tey tuddoon nañ leen bu ñu tuddee njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil rek tudd nañ leen ba tey euh, ñi bokk na ci li fi teew ci ay rajo télé ak i télévision HLM TV teew na fi ak Rafa TV ak Timis Act ak Al Khadimiya ak Al Istiqama ak Al Muridiya Lamp Fall moom itam teew na fi Wal Fajri ak yi rajo moom itam teew na fi ba tey bokk na ci ñi fi teew waa kër Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Mouhamadanil Mourtada ibnu Cheikh Ahmadou Mbacké teew na fi waa kër Serigne Abdoul euh, bokk na ci ñi fi teew ci njabootu Cheikh Abdoul Ahad gi soxna Bousso bintu Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Kolle bintu Cheikh Abdoul Ahad waa daaira Hizbut Tarqiyyah ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax ci seeni taxawaay di leen ñaanal sëriñ Mouhamadul Amin Diouf teew na fi ak sëriñ Ahmadou Samb ci waa xisbu tarxeer ak sëriñ Thierno géey ba tey ñi ngi sant euh, ñi nga xam ni ñoo doon def conférence bi mooy al oustaz Cheikh Awa Balla Guèye ñi ngi koy sant bu baax a baax ci ay taxawaayam ak njàngaleem mu leer ndax loo gàtt gàtt ak dégg bu waxee nga xam li mu wax ngir fasaaxa bu ko suñ borom defal waaye njàng mu barkeel mu bàyyi ko ci mag ñu baax ña ak Cheikh bu Mbacké ñu ngi koy ñaanal suñ borom gën koo sàmm te aar ko ndax ab sag la ci yoon wi ñu ngi sant bu baax ñaar ñi nga xamee itam ñoom la seqaloon jotaay bi di Serigne Souhaïbou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada di ay jàngalekat di ay di ay ndaw yoo xam ni ay ay royuwaay lañ ci seenu maas yàlla na leen yàlla sàmm te aar leen ci barkeb Seexul Xadim ñi ngi sant bu baax it euh, jamhiyatu kawaadirul muridiya ak sapeur pompier ak xoddaamul xadim nga xam ni seeni taxawaay ñoom itam ci bis bi ci wàllu sécurité rafet na lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal ak euh, RTS moom itam teew na fi. ak mboolem naataangoom yépp rek ba tey soxna Mominatou Kebe ak soxna lii Kaba ñoom itam yónnee nañ fi seeni addiya ngir jëmbi Serigne Abdoul Ahad na leen suñ borom fay kon euh, waaw kon ñi ngi sant bu baax Touba Belel Jëf Jël ci ay taxawaayam kon mbokk yi nun njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen leeral ni li waral ñu def ndaje mii mooy fedd li kóllëre ak dundal xam-xam ak jokk ak bokk yooyu day yoo xam ni lislaam da koo soxla lool wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula kon nag ñun ndaw ñi nga xam ni ñooy njabootu Cheikh Abdoul Ahad te bëgg fas yéenee topp suñ mag ñii nga xam ni fa fañ leen war a jaarale rek lañ leen jaarale muy ñu mat sëkk ñu ngi dénk suñu bopp di dénk ñëpp ñu fas góor góorgóorlu ci li nga xam ni mono fi bàyyi muy liggéeyal Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa waxoon inni ubayihu rasulal Mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa maa ngi fas yéenee jaayanteeg yàlla ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maa ngi fas yéene matal wëllëre wëllëre googu nag buñ mujjee poussé bu mu nañ ko matal topp suñuy kilifa topp ndigal bàyyi tere jéem a sax ci lépp loo xam ne day tax dëkk bi ñoŋ dana taxit nit ñi man fee sax man fee nekk istiqraar am jàmm am ba képp koo xam ni ñëw nga fi nga gis ni li sëriñ bi waxoon ni wajhal ilaahi maskani tuuba abat mislas miha bi jaaxi xayri man habat loola mën a nekk ndax jaamu yàlla rek moo taxoon sëriñ bi sanc ko waaye suñu borom waxoon na ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ndax sëriñ Abdul Ahad mii nga xam ni moom la ñuy fàttaliku ñu koy tuddee sëriñ Sohaib bu wax na ko bâtisseur ni euh, turam wi dafa mel ni daf ko wuy si ndax li euh, sëriñ bi waxoon ni baanit duyóor yi maa al xoyóor yi baaxi suróori jël jëlasaay ndax salaatu man laysa lahu kufan ahad Euh, sala euh, asalu man laysa lahu kufuwan ahad salaatu anni ala abdul ahad abdul dafa bokk ci turi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba tudde ko baani duyóor yi loolu tax na bâtisseur la woon tabaxkat la woon si ñëpp daana tabax ci nit waaye daana tabax ci dëkk bi ndax lépp loo xam ne luy jariñ nit la loo xam ne lu mel ni fajukaay hôpital gis ngeen ko wala aw yoon wala jàkka wala jumaa wala université def na ca ba la mu man ak lépp loo xam ni maddi yan wa ruhiyan lépp luy jariñ nit ak lépp loo xam ni dana tax ruuxu doomu aadama mën a xam boroomam wala sax dana lëndëmal ruuxu nit ba yàq am xelam lu mel ni tux cigarette ak naan sàngara wala sax loo xam ni dana tax nit ñi seen diggante ak euh, réeroo man caa am wala ak noonoo lu mel ni carte innamal xamru wal maysiru wal ansaab wal aslaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuhu laallakum tuflihun yooyu yëpp kom laat da ko daan tere ci dëkkam bi jariñ nit ñi kon suñu blaat umma la woon nation la woon li suñu borom wax ni inna ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi xanifan walam yakun min al musrikin sëriñ abdul ahad umma la woon boo xam ni war nañ cee roy roy ci moom ci liggéeyal sëriñ tubaa ndax dafa ñaanoon ni wa dumma nii ilal lasina xadamu janaabaka sharifa yaa mu xaddam ci xasiidaam googu daf ni yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñuy liggéeyal sëriñ tubaa kon ñun sëtam yi foofu la war a teg suñu tànk mooy góorgóorlu sax ci bañ a mujje poussé ba mu réer jéem a ñoŋal dëkkub Sëñ Tuubaa bi suñ kéemtalaay kattan ba képp koo xam ni ñëw nga ci dëkk bi danga nga fi mën a nekk nekkiin woo xam ni moo lay daqal fu mu mën a doon te suñu kilifa gii di Serigne Sidi nga xam ni mat na sëkk li mu doon te moo nekk ca kanam jiite ñëpp loolu lañ ko mën a jàppalee mooy topp ndigal bàyyi tere kon loolu ñu ngi ci soññ ñëpp ci loo xam ni day soñ ci loo xam ne day ñoŋal dëkk bi ci lu dul ngay xaar ndax suñu force mooy loolu waaw góorgóorlu force bu lislaam mooy loolu lépp loo xam ne lu baax la bu ci xaar bul xaar ku la tabaxal kër bul xaar ko la sampal daara bul xaar dara ci kenn loolu naka jekk li ngeen gis mu taxaw ci yoon wi rek loolu moo ko taxawal bu ñu la jàngalee yar la rek demal defi boo demee rek suñ borom dana la dimbali dana la taxaw kon ni ni loolu mooy tax euh, njàngale mi nga xam ni sëñ Abdou Lahad jaaroon na fi message bi euh, ngir ñu man ko jàll dëgg-dëgg mooy ñu dell ci loolee sëriñ Amsatu mii da koy wax lu baree baree baree bare saa yoo xamee ni coow am na wala problème rek Serigne Abdoul Ahad ci la ñuy dellu kon fi mu ne nii bu ngeen xoolee ñi ngi jublu par exemple ay élection te élection dafa baaxoo ànd ak coow kenn ku ci nekk muy ñiy laaj baat ak ñiy joxe baat kenn ku ci nekk war nga góorgóorlu def sa kéemtalaay kartan ngir jàmm mën a am ndax euh, dafa ànd pëccëxoo parce que lii xew nii ci ay coow euh, du nekkutoon hadaf bi nekkutoon objectif bi li ko waraloon mooy euh, ñu nos ko organiser ko ba bu ñu ci àggee kenn ku nekk xam lu leer ba xam sa mbër nga wooteel ko waaw loolu moo nekkoon objectif bi waaye lii kon politiciens yi nañ nañ nañ nañ xam ni nit ñi seeni nawle lañ ñu fexe ba jël mbir yi teg ko ci yoon bu dee dëkk bii di Touba nga xam ni dafa am ni ko sëñ taxa waxee Touba daara la mooy ñu xam ni sëriñ bi te terewu terewu fi siyaasa waaye niñ koy doxalee ak niñ koy jëfee moo ñaaw ndax politique saa yu ñëwee xiiroo xëccoo ŋaayoo nga jël lenn loo xam ni euh, am na ci ñoo xam sax àgg na ba sa politique bi sa leader bi moo la gënal si kilifa loolu kenn xa ku ne xam na ni rafetlu wuñ ko kon nag képp koo xam ni ab murit nga ab taalibe nga nekk ci biir dëkk bi sëriñ bi terewut politique waaye niñ koy defee anam gi ñu koy defee lañ war a xoolaat woote say kafe tàngal naan wax lu baax loolu kenn terewu ko su boobaa sax day nekk liggéeyal yàlla ni ko sëñ Tuubaa waxe woon kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rawatina koo xam ne nag mbàkke nga sant di wuyoo sant wi nekk ci biir dëkk bii nanga gën a góor góorgóorlu ci jàppale sëriñ bi jàppale kilifa yi bañ a xëccoog ñoom ci dara ndax euh, asamaha wa mooy li nu war ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi te itam xiiro bi ak ngaayo yi dara warulu ko lu dul ay kàddu kàddu nag jërul nga fekk kaddu goo xam ne nosu na ba noppi te ci diine la nekk nga mu jaral la ngay yëkkati yeneen kàddu yoo xam ne day tas mbooloo ma ma mooy luy tas jamaaxa bi loolu nañ ko gën a moytu ñun njabootuk Cheikh Abdoul Ahad gi di topp ndigal di bàyyi tere di ñaanal ni mun taxa mu yàgg fi loolu tëwél te tey kàddu yi ñi koy laaj bu ñu demee ba àgg ca péncu ndawi réew nañ ñu ngara nañ ñu dimbali ci li tax ñu yóbbu leen fa ndax foofee fa la ñuy nosee fa la ñuy noccee te nit dafa am benn amaana bu mu daaleeg yàlla inna arana samawati wal arda wal jibala uh, fa na ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha al insanu innahu kana zaluman jahula mooy dundal suuf dundal dëkk bi ba mu mën a jëm kanam ba kenn ku nekk yëg ci sa bopp te loolu mënta am li fi yëg lii ñu fi tubaab yi bàyyil mu ngi fiy nekk mooy képp koo xam ni jëngoo tubaab mënoo bokk fi mu ne Cheikh Mouhamadou moo sëñ Mourtada mi ñu doon waxtaanee ak Serigne Abdoul Ahad ak kilifa yi kenn mënta bokk ci kenn mënta bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy jiite réew mi boroom xam-xam yi ngeen di gis fii kenn mënu ca bokk loolu nag lu doy waar kon ñi ko mën a dindi mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ca péncu ndawi réew ma ba tey ñu xam ni euh, la ma aadama al asmaa kullaha kenn ku nekk saw lang ca nga mën a yëkkatee sam réew ba mu jëm ca kanam am maa yeneen ci nga mën a wàññee ci nga mën a bindee am maa yeneen xam-xam ya ca des nag loolu ku ko bëgg ay xadaara ak ay culture la ñuy dajale ba mu nekk ay xam-xam kon loolu nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ak jikko yi ñoom itam ñu bàyyi ko xel ña fay dem nañ bàyyi xel jikko yi ndax jikko sëriñ bi wax na ko léegi innamal umamul axlaaqu ma baxiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahaboo salaahu amrika lil axlaaqi marjihu wa qawi min nafsa bil axlaaqi tastaqmi ndax ku ne xam na ne rey gu bëri gi yii réew mi lu ñaaw ñaaw te ñàkk jikko yu ñaaw yi rek moo ko waral kon nag nañ delluwaat ci lislaam fal euh, euh, walakum fil xisaasi xayaa la suñu borom waa bu ngeen bëggee jàmm am ak dal am faw ngeen delluwaat ci euh, li lislaam santaane kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi ngi sant bu baax mbooleem ñi fi teew ñëpp di leen gërëm njabootu Cheikh Abdoul Ahad nag yéen sët ñu ngi leen di soññ ngeen gën a takkuwaat gën a laxasaay waat bu baax ci góor góorgóorlu ci lépp loo xam ni dana jëmale kanam daayira bi ndax dañoo am ay ahdaaf dañoo am ay ay ay objectifs yoo xam ni moo ñu tax a jóg mooy bañ tàmbalee def daay euh, conférence yi liñ ci bindagun lépp ci mag ñi boo ko dajoon dajale ay mu jàlladaat ay téere yu bari la te loolu. tàmbalee nañ ko ci Cheikh Abdoul Ahad ren dañoo bëgg mu gën a jëm kanam kon ñi ngi tàllal loxo ñëpp ngeen gën a bennoo ngeen gën a ànd gën a bokk li nga xam ni mënuñ koo seddoo muy Serigne Abdoul Ahad ndax dafa liggéeyal yàlla kon nag ñun waruñoo yaafus waruñoo ñàkk jom waruñ ñoo seetaan ci waruñ ñoo waruñ ñoo xeeb ci dara ñoom lañ war a def ay nawle jéem a góorgóorlu jéem a jëm ci kanam ñun képp ñoo mën a yëfi yóbbu yëfi ca kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi nuyu mbokk yi fi nekk ci baas bi yëpp rawati nag njabootu Cheikh Mahamadul Murtada xanaa di sànn kàddu yu gàtt rek ndax day mel ni li matoon a wax lépp Oustaz Seck yi ak sëñ Soin bi wax nañ ko sëñ Salim doon wax léegi mel na ne soññee na soññ na boppam soññ ay bokkam loolu am na solo ki ngeen tuddee bis bi nag moom muy sëriñ Mortada jot nañu ak ñu nafar ko bu baax a baax roy ko tamit ndax dafay nekkoon nekkoon fi diineel islaam jëpp nekkul fa murid rek islaam jëpp la sëñ Murtala nekkaloon njaboot yi itam ñëpp la jaboote woon doom yi boppam ak doom yi eh, magam yëpp ay doom la leen def yiir leen suturaal leen tere leen ormal ba bi mu fi jógee man nag sëñ Mourtala ko marqué la dama ko fàtte mukk ndax la sëñ Abdou daan wax ku defal lu ñëpp gis war koo sant ba ñëpp dégg ko sëñ Mourtala moo ma jëkk may kër ci Touba man ak sëñ Mourtala ak sëñ Xalil ci yoonu Mbàkke boole woon na ku ñuy wax sëñ Sàmbake yàgg na loolu yaakaar naa 84 wala 85 asilem gi itam daggalaat ma fi ñaari kër may ma ko moo ma jëkk may 500000 ci kaw suuf ca Italie te laaju ma ko dama koo fekk Madrid damaa ñëw ci tey sëñ Mortala ci suba sa mu ñëw ma dem siyaare ji ko mu téye ma ñuy jàngal alxuraan ba suba nit ñëpp bi mu waree dem nit ñëpp daw ca ca jëm ca moom ndekkee moom dañ koy siyaar di koy joxaat nit ñi man leen man de sëñ bi woon ni ma naa toog fanaan dem di ko tàggu moom waaye su demee rek ma jël samay kaake dem seex ren mi ak sa Abdou Salaam ngay wax wax ma leen du ma dem damay toog fii ba sëñ bi dem rek mu ñibbi ndax bëgguma faa dem mel ni damay sàpp ndimbal wala damay soxla waaye fa ma toog moo yéene ndaw woo ma tàq ni ñëpp ba ma des ak moom doomu ci néeg bi mu yëkkati sa bi jox joxam ma ne ko mukk sëñ bi du ko laal mu ne ma njëriñ rek a ci nekk ndax laajoo ko ñoo sekk ñoo seet jox la ko kon danga ko war a téye kon kooku ku tawee wa ngi noonu ku mënoon dimbali itam yàlla na ko yàlla fayaat li ma ci waxaat ñaari kàddu yu gàtt rek lay doon loo xam ni mbokkam xaritam Sëñ Abdou Lahad moo ko seere ci moom Sëriñ Mourtala Sëñ Abdou Lahad moo wax ni dafa jaxasoo ba war ko yàqal ak jaamu yàlla te yàqalu ko jaamu yàlla ba mu war ko yàqalu jaxasoo te yàqalu ko ku xam na ko bu masaa tukki mi ngi ci alxuraan ji jàng mboolem wër néeg bi day fees dell waaye mboolem bi tax mu yàq yàq am njàngam te bu julli jógee te mu mu julli jàmm yàlla daal nag kon raw na te mënu koo dab ndax sëñ Touba dafa dem ba nekk Mourtada doo ko am kon mënta nekk lu muy Mourtada kooku mooy sëriñ Mourtada yàlla na ko yàlla fayal fayal te ci barkeem mu def ci réew mi nag loo xam ni lim créé ci emploi kenn xamu ko ndax ma ngi woon ca transport ba ma ngi woon ca pourrier ma ngi woon ca école te ci jóge lépp da koy delluwaat ci yoon yàlla dañ ni ki gën nay xam nga ki nay dafa am ak tab ci tey mooy lu am def ko ci yoon yàlla xam nga sëñ daal di ngeen daa sëñ Mortalla dañoo nay ndax li ñu lépp yoon yàlla ko jox ki tabe nag mooy ki xam ne ci boppam rek la koy def ndax du ci am payu yàlla ñoom nag dañoo denc seen ëllëg ngir dañoo denc seen àll ngir ëllëg ngir suñu borom fay nañ dañ koo feret fañ ngir ëllëg kooku moo tabe kon nag seen jikko yooyu dafa jot sëkk ñu nafar ko ree leen ndax jamono ji yàqu na fi mu toll lool lëj na lool sëñ Mourtada boo masaa dugal ci compte nga xaalis sax bu amee fan mu jeex ndax avant muy dugg bind ay sec yoo xam ni gars yi dañuy dem jëkkante dem jëkkante jëli ko balaa xaalis baa jeex bu fa dugal 200 millions ni tey jii fekk na bind sec 300 millions nga xam ne sec yu mujj day jeex ba nga jàpp ni dañoo lekk xaalis ba te fekk moo moo tabe <laughs> bind ko bu leen di seetaan waaw na nga fi dee si ndax ëllëg am na lu ñuy séenu nangam nangam yàlla nañu ko yàlla fekk muy nit ku bëggoon xam-xam parce que lim tabax ci école ci ay daara alxuraan kenn xamul nu mu toll te loolu mooy bëggu sëñ Tuubaa loolu itam moo mën a jëmale réew mi kanam ndax xam-xam dafa dafa dafa dafa mënta ñàkk ndax mooy làmp bi leen di dal ba doo dàmb ci lëndëm te xam-xam bi am njëriñ la sëñ Mourtada def ci yow xam-xam bu ànd boobu tarbiyee mooy comme ni ni ko sëñ Saliou defee ñoom na xam-xam yooyu am njëriñ ndax ki jàng téere yëpp te ragul yàlla amul xam-xam lay sañ bi aalim bu dee xam-xam naar yi ko ëpp fuuf ak tubaab yi waaye dañoo amatul yar moo tax nekkuñ ci jàmm boo nag dañ delloo si waat yar bi bi sëñ tubaa defaroon mag ñi sëñ Saaliw doon ci defar ndaw ñi loolu nag manqué na trop léegi moom gën a yi da gàddu sab diplôme rek ku la romb sa baay boo romb saaga ko sa mag yoo romb saaga ko loolu nag mënta ànd ak barke ngi day am yar amee teggin te mag ñi defar gi ñu leen defar rek moo tax jàmm waaye li nga xam bu ñu ko waxoon ka leen di saaga àdduna tukki wala si jaaxal sol adabi yox fi jaaxal lu ko pann si fi mu toll boo nekkoon wala du si naat am yar ak teggin kenn du ko wax yar ak teggin yaa tax kon nag nañ jiital yar jiital teggin te doon yi taalibe taro yu mag ñii alaj baar ko naw la alaj baar bu sëñ Fallu ndax dafa fonk waajuram yemale wu dara nit nag la am da koy fonk baas bi war naa fees ak doomi sëñ Abdou Lahad war naa fees ak doomi sëñ Mourtala waaye ay benn benn dafa ñëw Alaaji Baara Mansour Diouf day def ak màggal ca ndakaar man demoon ca ba mu ñëwee mu jël kàddu ne ah bi ma ñëw di salaaw yebbal nañu ba tàyyi ngir bañ ma ñëw waaye nag man benn baas moo fekkal ko ci sëñ Fall sax doy na ma sëkk. kon nag bu ñu tuddee sëñ Mourtada lii njabootu sëñ Abdou Lahad di njabootu damaa xam nag ci yéen la wala ci yéen xaj na seen i communication jël ci jom bu dee fekkee ci yéen la na ngeen jël seeni tànk dem bi ñu waxtee ñoom parce que ñoo leen jur ay doom ak jarbaat rek ngeen nit ki wurta wayefal wajuram wurta wayefal ndiyaayam loolu bu ngeen ko defee dafa baax sëñ Tuubaa kat daana jëy nit ak ndax ko ba dugal ko ci ba def li bëgg ci moom loolu moo yoon waaye nag léegi luxe ak confort moo yàq jamono ji boo dee rawante ak sa bàyyi ci ci oto bu rafet rawanteeg moom ci kër gu rafet ngeen mbàkk dàqal kër alal du dara ji alhaakumu takaasur hattaa zurtumul maqaabir léegi yooyu lañ daw lañ rawante dana ci yàlla musal kon dafa guddi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf